عليه الجزيرات ما يمضى هذا سور وردوان نمني وساهدي رقيب حقيد في الجزيرات ما يمضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rahmaani rahim yasarul muna la daa limbal wëri man aadali ma xaaba an kulla wali jërëjëfe sëñ Tuba bokki jullit yi bokki taalibe yi noo fii ci Gabon nekk ci salle bii nga xam ne fii la ñuy defee conférence bi muy édition 2024 les traces de Cheikh Ahmadou Bamba ñu koy topp àndandoog màggalu seen caravane de Mayumba lu jiitu bis lu jiitu ñuy dem maa yomb nag xam ngeen ni mooy bis bi waaye noo ngi dëkk bi sëñ Tuubaa wàccoon noo ngi dëkk bi nga xam ni ahlu badirin kiraam miin na ko noo dëkk bi nga xamante ne mbooleem ñi am cër ba ci Seydina Muhammad fii lañ daan fekk sëriñ bi ñoo ngi ci dëkk bi nga xam ni fii la yàlla joxe sëñ bi yëpp ñoo ngi ci dëkk bi nga xam ni jigéen di wut sëriñ Tuubaa muy Gabon réewum Gabon doon loo xam ni Euh, sëriñ bi ci boppam moo fi ñëwoon tànn tubaab bi tànn ko pour indi ko fi mu doonoon muuruwaar ñu jël ay doomu aadama sànq leen fi ku ñuy wax ñoxor Baye Diouf fii lañ ko faate ku ñuy wax Mandumbe Mbóoj fii la ko tubaab bi indi woon ñu doon doonoon ay bañkat ku ñuy wax Demba be fii lañ ko indi woon Sidi Muxtaar ab naar fii lañ ko indi woon am chinois bu ñuy wax Wang Kwang fii lañ ko indi woon Euh, boo demee Côte d'Ivoire jàpp nañ fa fukki góor euh, juróom-ñaari góor dékku Jomati Alade Sossou Koudetti Sombiklo ak Antignon beneen ñu rey fa Dak Silva Félix fii lañ ko faate tubaab bi da ko tànnoon muy dëkk boo xam ne ku fii fi indi même bu la faatul physiquement mais di nga faatu moralement faatu ci côté yëpp mu indi woon fa sunu jàmbaar je ma nekk ak Serigne Cheikh Mbengue Baye Fallou Gabon Baye Fallou Mayomba sëñ Cheikh lan nga yëg tey bii. administration bu Gabon ñëwee Sénégal ba jox sëñ bi caabi ne ko yaay tëj maa yomba yaa koy tijji keroog gis naa euh, nga am euh, xol bu sedd boo xamante ne nii xam naa fa nga toll ana tey ban message ngay joxe ñi nga xamante ne jóge nañ Sénégal ñu jóge ci yeneen i dëkk ñu ci saar baax sëriñ Basiru Tiib moom sëriñ Muntaxa teew te sëñ Kosor Mbàkke daan ko teewal waaye euh, mention spéciale soxna Seyna bu njëgeen waaye noonu laa koy bàyyi rek ziar sëñ xaadim Buso sëñ Seexuna Buso waaye itam sëñ Seex Xaadim Fall ñu bàyyi ko ngont mi ngay bàyyi Fall ana lan ngay wax murid di sëriñ Tuubaa sëñ Seex sëñ moor ñu ngi am mbégte bu baax xanaa fàttaliku rek ba sëñ Tuubaa di wàcc fii ci maayo ci Libreville naan yasarali mun naa laa daal limberweli man xaadali maa xaaba an kullu wali mu mel ni la sëñ Tuubaa waxoon moo confirmé wu tey sëñ Tuubaa ne woon na bi ma wàccee ci waaxub Libreville la ma suñ borom fayee loo xam ne moo fàddoon wàllu yi loolee nag jotaayub tey bii ci la bokk ndax koo xam ne mos naa ñëw fii ni nga ko limee delluwaatoo say cosaan sëñ Tuubaa rek a ñëw Gabon ay ñooñam di delsi di topp ay jaar-jaaram muy doon ndam ci ñoom lam waxoon maam Cheikh ne ko maam Cheikh tukki bi yàgg na waaye saalituma loole moo am tey loole moo gën di feeñ tey tey jii fii nu daje ci libre Libreville mun Muntaxa yeble sëñ Basa ngi nii toog soxna Bali yebal fi Cheikh ak njaboot gi nga xam ni ñoom ñoo ñëw teew fi suñ biir ànd ak sëñ see Khadim Fall seen taalibe bi ñëw fi ndax bis bi kenn ku ne xam ne ni mooy ngontu maam Cheikh Fall waaye mooy cérémonie officielle bi kon daal euh, tey maam Mor li ma yëg yéeme na lool waaye nag euh, maanaam day dadi sëñ maam Mor maanaam daf di murid yi ñoom seen bopp ñi fi ñëw seen saga andiwu leen fi ndax borom simaamul wala asila de laay fi yeddi moo woomat ay taalibeem andi leen Gabon te ñoom buñ fi ñëwee ku fi jóge mbeg rek ak pas-pas bu dolliku ak fa nga yemoon ci sëñ bi nga gën a yokku rek bu ñuy dellu loolu la ñuy yóbbaale waat sëñ Mamoon Baye sëñ Cheikh mu mel ni suba dinañ dem Mayumba waaw boo ma doon euh, xaymaal Mayumba ak ah. euh, fi nga xamante ne fi lañ nekk moo fi lañ nekk mm-hmm. ci ay kilomètres waaw euh, nan la nan la toll ak wax ko murid yi ba nu xam ni mm-hmm. ñoo ngi jëm bërëb bu sensible mm-hmm. waaye noo ngi jëm ci bërëb bu jafe bu difficile sëñ Cheikh Mayumba xam nga ni Mamor dëkk la boo xam ni dëkk bu sori la Libreville gi ñu nekk Libreville ak Mayumba estimé nañ ko à huit cent dix neuf kilomètres ci jamono ji waaye jamono jëf sëñ Touba nekk na nga xam ne gaal amu fi oto amu fi dox tànk ngay mën a doxee foore bi mënoo jajaar ak tànk sëñ Touba ñu koy jaarale ci ay gaali géej di ko joow jëmee ko Mayumba jooja jamono topp ak moom laguwee bi ba dem ci Océan Atlantique topp ak moom Océan Atlantique ba dem ak moom ci ndox mi naan la bañoo door ko yóbbu Mayumba defal ko séquestration juróomi at ñu tëj ko ci Mayumba yoo xam ku yàlla bind xamoo sëñ Touba nekk Sénégal foofee sëñ ba nekk fa def fa ay ndam bañ naan ko yàlla gabon nee na foofee ma mel ni ab jant foofee lañ jëm suba waaye nag maam Mor li ci yees mooy président wu gabon bi nga xam mooy Oligui nga xam ni moom euh, ku bëgg yoonu murid la ku ko xam la moom ci boppam moom ministre des affaires étrangères dañoo waxtaan ak seen gouvernement ñu boole ñu ak ministre de tourisme mu ñëw seet sëñ Mountakha Touba Mayumba gën jëm caabi dëkk ba sëñ Muntaxa lañ ñëw jox si ko Touba mu jox ñu ñu ànd ak moom nar a ubbil suñu bopp bu ñu demee Mayumba kon daal looloo ci yees ministre bi nag nee mag ñuy xaar ca Baie-de-Roi su talibé monté montagne seen ci foofee sëñ Touba am jumaa ju mag ja war faa déparé ministre bi ñuy xaar ànd ak presse Gabon bépp pour ubbil ñu yoon wi ñu door a tegu ci yoon wi maam Mor suba. jërëjëf Fati dégg nga juróomi wi at ya ca ni jant foofa ca Mayumba nu Euh, production donc télévision waaye ànd boog maa yomba TV Touba ca kanam ak euh, euh, ñi nga xamante ne ñëpp rek ay site internet la ñuy fasatikoo sëñ bu Mbaye gis naa ko fi muy nekkoon conseil finance bu Ablaye Wade gis naa ko fi waaye lii lépp rek di ak cant boo xamante ne murit nañ sant Serigne Touba keroog la romb waa Indarloos machine ba rulle ba weesu Mandarloos ab la capitaine Blé moo ko teeru ba woo Angleterre làkk yi tuuru yor yor la gaal ga tebbi jëm Conakry bisub libéer noonu ya naan ngiri ngiri ca tàkku saani suuf la gaal koste costé dun buñ naan tubak marañ yey konté foofa la Bamba njëkk a gisee kurmaana ak timili ko kurbo ñu néewi maana mu daal di romb akaraak waa Cameroun sa sandra la wàcc gaal ga ne fa ñuul waxtu la fa taxaw ñu liit mu déqi ilaa Conakry tubaab yay soqi mu dellu war ca gaal ga jaar limi jaar atami dem kotumi dem dawme ba bësatee Seex Bamba xëy dem dawme romb Lagos ca kaw tubaab yay armée fii la français yem soo yooyee waxtu Cheikh Bamba romb na leen mësta tiimal waxtu malaka ni maaliku inda daw mi maaxat kafaani utaata zaw mi keroog la daam tàbbi nag géeji Congo kab la ci la wàcc neem gongo boo déggee nag mu ne kab géeji Congo mooy bul fàtte ni kab la moo frontière ak Congo Brazzaville waaye frontière ak fa nga xam ne mooy Mayomba suñ Cheikh Mbeng wax nañu ko sànq waaye loolu yëpp rek tubaab bi li mu bëggoon mooy kenn du fi tudd yàlla laa ilaha illallah kenn du ko fi wax kenn du xam alxuraan màggal gi du am kenn du xam maam Cerno Cheikh du am kenn du existé loolu la bëggoon waaye nag wolof ya nee dëjjiñ ja fay na mbaal ja jéem tële ja nag gàcce dee ja kon mbokki jullit yi ñu dem déglu sëñ Alaaji ci njàng moomu àndandoo koog yéen lu xew ci cérémonie bi rek nañ ko àndal ñu ngi ziar ñëpp nag maa ngi fi fekk nag sama rakk ndeysaan soxna soxna Mbaye Mbaye seen euh, sama rakk sama xarit moom mi ngi fii ànd ak soxna yi xam naa ñoom dinañ ñëw jël seen wàll ci kanam tuuti euh, def seen contribution ñu war a dem nag Mayumba e eh, murit ilaa Mayumba fa la ñuy waajale màggalu sëñ Tuubaa gi Mayumba ji saalo sinni kuitilo barakata molbidimola dindimoati diina tuuba inti diinoo bi diina molbidimola dindimoati diina tuuba bi inti diinoo bi diina ledi ba on kulangon kañanta inti in baba to xaw tuubit sharifo kilmala tuubi sharifo an tabintu mala tiñaajo sana min ni loo ay waalide yi ñëwal tabaana bambala nooru don to sibboo naata tariyaabu na bambala nooru don to sibboo naata tariyaabu arsuno wa kursiyo dindi silaalu jiita wa fulo wolo boyta dintunooru bannaji laata ridduwaanu orjinaanu musoolu laata dintunooru bannaji laata ridduwaanu orjinaanu musoolu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 وسار كنار الخل لي برما ينبع